Serigne Abdoul Aziz Diaw di marabu tradipraticien di yëngu lépp lu jëm ci wàllu ñaan yàlla te léegi ma nga fële ca Thiès lépp lu jëm ci listixaar lépp lu jëm ci plante xalwatu lépp lu jëm ci sangatu ubbeeku muslaay mucc ci cat bay ree sëriñ Abdul Aziz Diaw moo ma ci day soo bëggee gis xam-xam ba maam ya yoroon dawal seeti sëriñ Abdul Aziz jaw ma nga fële ca Thiès waa Thiès daal léegi gañe nañu ndax nangu nañu sëriñ Abdul Aziz Diaw yow mi jógee dakaar te wàcc ci péage bi premier arrêt ci garage bi nga jàdd sa droite boo doxee tuuti di nga gis tableau Madinatu Rahma jàkkaarloo kër sëriñ Abdul Aziz Diaw borom képp ku jàppanteeg man ci wàllu ñaan yàlla mucc nga ci ñu lay xeex mucc nga ci xaatim mucc nga ci gàllaaj di la jàpp lépp lu jëm ci fajum plante sëriñ Abdul doy ngir mën a jokkoo ak moom ci 77 571 87 63 wala 77 067 ngir jokkoo ak Serigne Abdoul Aziz Diaw. 9 jot na ba teg 32 minutes fële ca Bakel ak li ko wër asalaamaaleykum. jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a taamu leeru jamono ba di fi dégloo seen i xambaar euh, émission bu mag bi la dellu seeti na mu di jommet jommet nag ngeen di ko altine ngeen di ko am altine ba talaata wala ba aljuma 9h30 jàpp 10h ngeen ànd ceeg équipe bu mag bi le gërëm ko bu baax moom alaaji Sanjoogu Mbeng euh, ak ma jigéen ak soaay bu ngeen ci àndal Mamadou Makhtar Sarr la ñuy jël nuyoo correspondant Walf Fadjri teg ko ci loxom euh, bu ñu fa jógee nag foofu la ci Touba duñ ko génn ñaan lu ñu sëriñ Sidi moom sëriñ Abdoul Ahad Mbacké nga ja Touba mu yàgg fi lool te ànd ak wér Mbacke Balla ak mboolem ña nga xam ne ña nga ca kër ga te di ko jàppale ca liggéey ba Touba googu yi biñ ko génn te ñaanalu Serigne Mountakha moom it mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem xalifa yi ci biir réew yi noonu la ñu ñaanal sama gars yi ne xam ne ñoo ne ci euh, Facebook beeg euh, ak WhatsApp beeg di enregistré ak partagé Alaaji Katim Cissé Elimane Diop Cheikh Ndaw président Lamine Diawara commando yaa ngi ci biir fële ca GCB nag Baye Assane Mesere ak Mouhamed Sila ak Abdoul Ahandoy Ahmadou Bamba Dieng Bamba fépp ak Serigne Ibrahima Gisa euh, Diop ca ginnaaw Bissau ñooñu ñoo fare ca enregistrement yeeg partagé yi jàngeen jëf sama gars yi ci liggéey bu am solo bi xayoo itamit moo ñuy gunge ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne ñoo ngi koy amal fii ci Walf Fadjri di quatrième opérateur bi nga xam ne defe naa sénégalais laajteetuñ kan mooy hayyo waaw loolu yi nag dinañ ci ñëw ci kanam incha allah xaritu Serigne Sidi baa ngi toog euh, moom alaaji Sanjoogu Mbeng xaritu sëriñ Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke di xarit ci Serigne Daara maa ngi lay nuyooti. son bu ñu ngi lay fay. di la ñaanal jàmm. di am mbégte ak kontaante ci yow. Euh, di ah. dem ba Touba Mbacke di nuyu xam général des Mourides Serigne Mountakha. Mhm. di ko ñaanal mu yàgg fi tànn ak wér. waaye ñu ngi nuyu bu baax sunu sëriñ sunu xarit. muy sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke waaw ñu ngi koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool tànd ak wér bi ko ziyaar bu wér wér mm-hmm. di nuyu bu baax sëriñ Xaadim Fall mm-hmm. ne ca kër ga di nuyu njaboot ga yëpp di leen ñaanal jàmm mm-hmm. di nuyu sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Mbacke Karim wax laa di nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi lew nañu seen Medina Baye Tiwaawan Njaasaan Laayeen ba àndulaay di nuyu bu baax waa jaamal di nuyu tamit waa kër maam El Hadj ca Thiès di nuyu xam daal des Baye Fall di nuyu bu baax mbokk yi suñu mbokk jàng bi di am ci ñoom ñëpp mbégte kontaan di nuyu euh, Cheikh Baara Ndiaye borom def gi sëriñ Médou Seye borom tawféex di nuyu senegal yi ñuy teewlu yëpp fu ñu waay mën a nekk mhm. ñi ngi am ci ñoom ñëpp mhm. mbégte ak kontaan nuyu Xalil mi nga xam ni moo nekk ci internet bi Ibrahima Khalilullah di nuyu jéen ñoom ñaar ñu ngi leen di nuyu di nuyu ma jigéen ma ca genn ak basang te dëkk ci yëngal salaay hmm. loo am na benn waay bi ma woo dem Italie naan ma man yëngal gi moom dama koy xaar dama koy xaar ndax moom ma jigéen yëngal gi daal tawarkal <laughs> ma ne waaw ba jigéen ba jigéen war na war sax daal de ma gi taay yi dama koy arrêté quoi. waaw bu ah, ah. ko arrêté mais mais kon gars yi dañuy mer. Hmm. te bëgguma ñu mer nag suñuy auditeur lañ du dëgg sama yow. waaw dëgg ah, allah. ngeen nag basan te dëkk ci. yëngal. <laughs> macha allah. basan gi de war naa xotteeku. <laughs> <laughs> génn ak basak def leen ko ñett sax. Ah, di la wax kontaan naa alaaji si su yëngalu suba teel bi. Mhm. di la ñaanal sama ñaan gi rek heure bii déwén yàlla la fekk nga yor kër ca Touba. amiin ma jigéen delmaas noonu. ca xolu Touba delmaas ni delmaas noonu. amiin noonu. waaye ba jigéen bu waddu bés bu ma dundee ba nga xam ne. màggal day jot ma may dalal gan yi. ah non sooy bu taxaw ci buntu ba laxasaayu. Eh. di organiser naan góor ñi ne la ñu leen di altaas. kan mooy kan mooy organiser. kuy organiser ko di def. <laughs> yaay takk sa digg di sëriñ eh, Assane Assane wax na ko ah, Assane xayoo Assane Ndiaye Assane nee na ma sëriñ nee ma ma jigéen mooy gérer jigéen ñi fu ñuy dal sooy boo jee gérer góor ñi incha allah yal na ko yàlla suñu bopp at yi yëpp doo ci jot si <laughs> barke Seydina Mouhamed yàlla mën na ko te dana ko def nag yàlla mën na kër gi de waaye taxaw laxasaay moom <laughs> jigéen yow booy ñaan del xol li. waaw déggoo ma ni yéen yàlla may leen ko. ah waaw toog rek waaye xam na amee kër tamit. yow ñaan lañ yàlla nga am. fa kër ñu dend ay kër ñaanal ñu dend ay kër. ngeen di dalal ñëpp waaye taxaw ci bu nekk alaaji. wallaay naan na góor ñu taxawee. <laughs> sooy bu. di nuyu euh, auditeurs yi nga xam ne dañuy safoo di see déglu Jommet saay su nekk nag fii si Walfadjri 99 point 0 dem ba diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar nuyu leen ziar leen ñaanal comme ni nga ko waxee sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak amiin amiin moom defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko ca biir këram euh, nuyu waale si nga xaadim bu baax a baax ak mhm. mboolem xalif général yi nekk si biir réew mi yëpp ñu leen di mhm. nuyu di leen ziar di nuyu suñu duñu fàtte benn yoon suñu mbokk sàmmkat yi ak baykat yi mhm. ak borom ngi. borom lan léegi sareet romb ma ni ma yow eh. doo maa jigéen ma ni ko ankay mu ni ma soo demee nuyul ma saa Ndiogu Mbengue ne waxtaan yi muy def euh, am na solo lool. jërëjëf waaw mi ngi lay nuyu bu baax borom sareet yëpp saa dañ koy mbalak ci tali bi. <laughs> taximaan yi samay gars yi lañ la. day mën a tooñ rek léegi débat yi taximaan bu dawal ñu di ko coincé. <laughs> Hmm, samay gars yi lañ di souhaité waale Laye Diallo Ablaye Diallo mi ci kër gi. tey la anniversaire tey la anniversaire am. déet mais yow Laye Diallo bi ma matu ko. Ah, non non non non matu anniversaire rek léegi. ah mais yi xamoo leen. non matu ko jigéen xaaral affaire yi moom jar naa xoolaat. ñaari quarante lañ yor moom magam yëpp <laughs> ñu ngi parce que bi mu fi anniversaire léegi bi ko bétti di wax ci télé bi. matul at matul at. ah mais ah, waa DIC ñu ngi leen di woo ñu convoqué ko. waaw ah, laay xool <laughs> waaw. ñaari carte d'identité fu mu ko jëlee ñaari carte d'identité lool wala lu mu yor. moo donc il faut que tamit moo ñu convoqué. <laughs> vraiment mais kurus la yor nag bàyyi ci xel. ay kurus la ah, yor ku wér ba garage ba tuxu sa oto baa ngi bëgg a fees. Hmm, waaw donc fu la ñëw. ba bàyyi ngeen ma place baax. kay naan boobu place palaasu laay ah ñu ngi koy souhaité bu dee tey la ah. mu gudd fan lool te ànd ak wér. balaa dellu si mu am soxna. incha allah. Mm-hmm. waaw amin ñu bëgg ñaareel it yàlla may leen ñu bëgg ñaareel. ñu bëgg ñetteel it am ñetteel. ñu bëgg ñeenteel it am ñeenteel. ñu bëgg a yem ci benn ñu yem ci benn. ndax am na coalition ànd benn jabar am na ci réew mi. waa am na ci yàlla na day daw ci ñu bëgg ñetteel waaw ñu bëgg ñetteel daal te nekk bitim réew ñëpp ne leen amin may ñi ah. hmm? bëgg ñetteel ñëpp ci barkeb Serigne Sidi moom di ngeen ko am de ne leen ah, amin amin ci bitim réew ak ne leen ah. amin ma jigéen neel amin <laughs> ci barke Serigne Sidi laa ñaan de yow dañ laa xajal ngeen di doo xajal laa <laughs> yàq su kaa yëngu baadoo ngeen di dañ leen a xajal bi eh, ah, ah, mbir mi dañ koy bokk. àdduna potu ndaa la. ku naan jox sa morom. jox sa morom. waaw loolu de dëgg ah, donc kañ yow Penda mere na. Hmm? Penda waaw Penda nañ dimbali baal ba mu wutal grand Adama. Hmm, <laughs> grand grand <laughs> wutalee ki ma ko bëgg a wutal. Eh. ba man ak kooku nga xam ne fii lañuy ñuy ma koy def dédicace di di di ko nuyu. <laughs> zappe Penda. waaw Penda xam. sa xarit la de. waaw ban xarit. aywa mi ngi noonu Penda Diallo Guèye di technicien bu mag bi ci kër gi <coughs> yaru lool xam naa boo doon wër ci àdduna si technicien yi ko gën a yaru moom doo ko génne ci rajo ak télé yàlla na ko yàlla doole jàppale amiin ñu ngi nuyu suñu benn xarit bu tudd Alioune Samb moom ma nga ne ca Touba Alaaji day déglu waxtaani bu baax a baax Alioune Samb macha allah sëñ Alioune Samb ma nga ca kii sëñ Moustapha Mbaye ah, kooku nga xam duggoon na génnaat bu génn mënta ne am na koo xam ne kii xanaa xamoo yow loo xamut ah. yow fi mu toll nii moom nee na jéem a bokk ci première jëwriñ yi parce que am na waa Italie yaa ngi waajal ay nag de. Assane Mesere ci boppam am ñu ko woo ca Italie. ne ko ñu ngi waajal parce que nee nañ ko duñu seetaan seen ab sëriñ. waaw duñ ma seetaan. waaw alaaji yow bu leen di topp lu mu lay toppee maanaam. lii may def ni lu ci ne. <laughs> baax rek laaj bu nit di nga laangaat. kumba bëlil dëkk boo dem def fa lu ne kumba bëlil dëkk boo dem def fa lu ne weng. moom la ko nga ne ma aduuta tëbbal ba mu wokk bu wokkee layal layit soxla gaa ñi ganaar a ko soxla jox ko mu loolu jarta topp waaw macha ah? allah wax dëgg ñi la topp moom yërëm naa moom moo xas ba dugg moo ko seet ba mu doy ko mu dugg mm. léegi sax dara ma nuyul ma ah. ñooñu ñooñu lay wax de <laughs> kii kii day xaru. <laughs> <laughs> bilaay daal ñooñu. nee na ma saab sëriñ. wóor na yàlla day xaru day xaru. ñu ngi koy nuyu ba moom sëñ Moustapha Mbaye. sëñ <laughs> Moustapha Mbaye ca Touba alaaj nuy waale seen waa ji ngeen dalal de Mamor Mbaye. Hmm. waaw tey Mamor Mbaye ah gisoo. tey na rajo bi. démb la ma woo. jox jox jox ma yu. ah jox ah, yu ñu ne ma ne ko. Uh-huh. rajo bi. Hmm. Euh, neel Mamor mu bàyyi bi muy biis. Mhm. ne ma dana ko dakkal. moo tax gis nga tey rajo bi suus amu ci. Mamor la moo ko daan suus ko kon ci lu ah, yaa ko daan rek leer ba nga wooyee ba mu la mm. joxee mm. kii rek. waaw fay rek dana dana dana parce que Mamor Mbaye euh, dafa xamul dara ci technique. day ñëw rek di biis. moom yoonu géej gi lañ ko xamee na ca yam. Mm-hmm. en tout cas démb waxtaanam bi neex na torop ah. mm, jàmbaar la. waaw. Mm-hmm. Ah. ba pare indi fi ay berne yu am solo. waaw waaw. waaw Mamor dafa ñëw ndeysaan indiwaale dix mille après mi dem ab ma deux mille cinq cent non <laughs> alaaji Mamour jël dix teg ci taabal ji dix mille taabal ji daal de berne leen waaw pare mu ne ma juróomi téeméer ñu ma jëndee essence ay waay essence ay alaaji <laughs> alaaji sutura non eh, ban sutura loolu ah. Mamour dafa abul ah abul sa diggante yàlla voilà ma mën ngaa waat ni Maam Mor Mbaye abbu ba. 2500 maa ko gunge ba ci suuf mais abbu la. non yow ci suuf nga nekkoon. waaw alaaji abbu. avant muy génn. Ah, alaaji Maam Mor lii de ñoom bétti mën nañ koo confirmer. bétti mën na ko confirmer. ah gis na ma bi may bi di ko jox. mais alaaji ah, man maa ngi foo kii bi la jël daraa ji. da ah, moom la leen muuree. Euh, ah man maa ngi foo toog te gisuma dara. mel ni kuy foto fotowul fotowut. déet yow alaaji taxawal yow 10 000 noo koy génnee ca plateau bu bu hmm. kii ba. 2500 laa ko abal. ah moo ma yoreel juróomi téeméer. <coughs> nee na bu ma ñëwee fële. moom ah, xanaa joxewul ñaari junni. nee na ma su ma ñëwee Masaalik. waaw ah, ñaari junni yooyu dafa fàtte woon day jënd essence mam dafa ñëw di wane kii ba dugg ci guuta. Hmm. lim lim yor romb des. laay alaaji xam nga li la ko may bilaay bu bétti jëloon lépp dana leer. bét laa woo ni nangul jël. kon nee na ndax Mamour daa àbb Mamour ñëw joxe fi 10 000 ni safar leen nga naan dafa àbb bétti bu jëloon jërëjëf tey sax da nga bokk ci ñamale gi li nga sosal Mamour ayja ma jigéen tey euh, Adja yow woo cëm ñëwal mbuuba jali euh, salaamaaleykum auditeurs yi Walfadjri ñu ngi leen di ak internet yi waaw sànjoogu li mu wax sànq ci Mamor waaw au a ñëw waaw indi ay berneem waaw moom gerte caaf la ko jox ak attaaya gerte moom mu indi ay boisson indi léppam ba mu mat alhamdulilah jërëjëf Mamor ñu ngi lay nuyu yow jàppal ni rek ah. defaan naa la fii naa la defaan ca télé ba cam xarki rasulaay jërëjëf Mbuuba Jali alaaji ador kooku li ko xam nañ ko <laughs> lan la lu la nga <laughs> cuuc fii talaata nga cuuc fee alxamis nga cuuc fële <laughs> moom biro yëpp saal maquillage am lañ béti daal ñëpp xam nañu moom euh, ma jigéen moo lay mag waaw kon kay amatul fooy dem ay cuuj fee. ambulant lañ di. day dox ma jigéen di ko boros ñuy def loolu. waaw waaw waaw waaw waaw <coughs> jërëjëf Betty Mbuub jërëjëf Mbuuba Jali. émission ah, yi bu temps waaw parce que yaa tey yaa tey moom vraiment lii la. Ah, ah. soxla sa tarixa bi seey na alaaj ñëpp bàyyi nañ la. seey ñëpp bàyyi nañ la. laaj eh, eh. gàcce gii. gà eh, ban gàcce sama indi mi nga laaj ji koo xamante ni kii fi doon day wër di makkiw xamut fu muy makkiw moom ma jigéen seen boros la ñu yor di makkiw. <coughs> macha allah tey ñu jël euh, benn ponk. ma jigéen ginnaaw bi euh, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké génne woon def déclaration ci ganam googu mu am wala gan gi mu taxa Mbacké bëgg a am mhm. samdi muy président Sall gannaaw ba daal ñu doon jàpp ni dina am ñu yëngu-yëngal mhm. bañ ne yëngu-yëngal nag am na ñu ko tegoon muy xale Pastef yi waaye gannaaw ba Serigne Cheikh Thioro Mbacke ma nekk ca Touba. Euh, te jiite Pastef foofule def na aw xët wu yaatu maanaam bind na communiqué daal di wax ni képp ku ñuy wooyee Pastef ku bëgg Ousmane Sonko wala ku bokk ci parti bi na nga jëfee ndigalu sëñ Mountakha Li maanaam bul yëngu. bul yëngal mm. kon daal lépp lu ci am kon kàccat leen ci waaye ñoom def nañ seen communiqué. sooy bu taalibe yi de rus nañ al muntaxaa goo xamante nii. Hmm. kii bu c'est vrai que nag fas moom say fas boo ko yoree lu mu daw daw du tee nga làbbali ko waaye nit ñi déggoon nañu li nga xamante ne nii sëñ Bass Abdou Khadre waxoon na ko te jàpp nañ ni taalibe yi dinañ ko jëfee noonu da ngay seet rek temps yi li passé jamonoy ëmati ba mu fa amee waa Mbàkke ko keroog rek yaa ngi koy wax génnoon nañ commencé di yëngu-yëngal ba sëñ bi waxee keroog la ñu tuub kon donc jàpp naa ni li ñu wax Euh, dara loo xamante ni nii rek luy ñaaw la duñ ko gisee ci taalibe yi même ku bokkul ci Pastef sax bokk ci beneen parti doo ko jëfee parce que am nañ fu ñu teg mun Muntaxa foo xamante ne nii lu mu wax rek ci joxe ci ndigal gars yi dinañ ko jëfee bu soobee yàlla ñu koy ñaanal nag moom président Sall mu dem ak jàmm ñibbisi ci jàmm te dara benn coloration politique bañ am foofu noonu ci Touba noonu lay demee nag incha allah. incha allah mhm. waaw xam nga macha allah sëñ Cheikh Thioro waaw Mbàkke ñu ngi koy ziar. di wax ni luy mu def nii lu am solo la xam nga <coughs> parti moom. Pastef moom lu ñu leen di tuumaal. Mm-hmm. Euh, bari na waaye it fi ñu tolloo ko waral. Mm-hmm. parce que tamit euh, mm-hmm. am na parti yoo xam ne kenn du leen tuumaal dara. ndax ñu fenn. donc nag am na yoo xamante foo xam ne boo fa tollee. waaw loolu yëpp da nga koy nanguwaale. parce que sa tolluwaayee tax. waaw parce tey jii ku gis ni. ku mën a yëngal ca Touba. Euh, xoolatuñ ci PDS waaye Pastef lañ ciy xool. loolu day wane ni euh, Pastef. liggéey na fa liggéey bu rëy. ba war a mën a déranger. ki war a ñëw. wala déedéet parce que jàpp nañu ay booyam dañoo dàq ruube rek. waaw non c'est que du question dàq ruube mais c'est xam nga ndaw ñi si boppam. Euh, dañuy retrouver wu ci parti bi quoi. xam nga ndaw ñi. dañoo raw politiciens yi te politiciens yi yëguñu ko. parce que ñu bari dañoo defee ne sunu ndaw yi xamuñu. waaw te fekk ne. ñoom ñooñu naan xale yi yeewuwuñ. ñoom ñooy nelaw. waaye xale yi bañ jógee yàgg na. Ah. xale yi dañu xam li xew bitim réew donte ñu ngi ci biir réew mi. mais dañuy échangeanteeg seeni morom yu nekk ci yeneen réew yoo xam ni. dëgg la euh, nga xam yi daal développement yu extraordinaire te li leen ko waral rek. mooy njiitu réew buy liggéey ñu xam li liggéey mën a mm-hmm. jariñ. loolu xale yi dañ ko xam. Hmm. xale yi boo koo ci waxal benn ñaat mu wax ak yow dugal la Rwanda. da la xool Rwanda démb la fa xewoon. dëkk la boo xam ne ñëpp defoon nañu mën ta jak hmm. te bi muy toll ci situation yooyu Sénégal moom ñu ngi ci jàmm ñu naan ah ñun de ñu ngi ci jàmm. Hmm. tey Rwanda doublé nañu ci kii bi mel noo xamante ni bii mooy loolu lan moo ko waral. liggéey fekk bu gaa yi liggéeyee jël xaalis bi di ko dugal fi ñu ko war a dugal. réew mi dox. waaye li garaaw mooy. dañ leen di jox xaalis pour ñu liggéey mais du ñu liggéey. te sanction du am xam nga loolu mooy problème mu Sénégal. Sénégal il faut que ñuy sanctionner ñi nga xam ne ñooy ñuy jubadi. Mm-hmm. parce que jël ay milliards. Mm-hmm. ñu naan diw jël na nangam Sénégal léegi moom sax bu ñu nee diw moom vraiment. détourné na euh, cinquante milliards de dollars gars yi ngandaloo quoi. cinquante milliards du nit. xam nga. c'est loolu mooy problème Sénégal tamit euh, son yi. Mm-hmm. waaw dëgg la parce que yow tey. nit ki bu sàcceeb xaalis. waaw dañ ko war a xool xam nga <laughs> le fait que ñu kii naan détourné sàcc la. non détourné la xam nga waaw mais dañ koy def dañuy jéem a vol la du détourné <laughs> vol sàcc la yaa ngi dégg. dafa am loo xam ne dañ ko woowee comme mais buñ ko kiiyee mooy jéem a defar naan détourné ban détourné. ak càcc la. sàcc dañ naan ko sàcc nga. xam nga. bu ko defee boo génnee ñu ne doom sa doom bu génnee ñu ne doomu sàcc baa ngee ah. kee la bàyyam sàcc réew mi. mais alaaji dafa rëy mais alaaji boo ma joxee un milliard defar loo ma rajo. waaw studio rajo ba ma defar ko ba mu rafet. waaw desal cinq cent millions. waaw loolu la ca des ba ak sàcc la. bu ma ma nee tee ko ah déedéet. yow yow yow non déglu ma yow bu fekkente bi tey. xam nga tey lépp ci ka ay calcul la. waaw lii la lii la lii la lii la loolu yëpp dañ ko kii bu fekkee teg nga calcul yi ci yoon. boo defaree studio rajo du des. ah waaw waaye nag bu dee dañu def nag ay facture yoo xamante ni bi wax na lii lii lay jar te jarut lii micro lii lay jar te jarut lii loolu mooy gonflé nañ mbir ma ba léegi affaire bi mi ngi ñu war a couté un milliard fekk affaire bi mi ngi ñu war a coûter vingt millions waaw nga téye la ca des waaw léegi loolu mooy sàcc gi ok comprendre na voilà acca gërëm ko bu baax moom Alaaji Sanjoogu Mbeng ñu waaxu bala ñoo sàcc ci minute yi tuuti ma jigéen waaw sooy waaw waa ji di Baye Assane moo dajeeg moom xam naa ne daal am na lu metti lu ñuy jàmbat loo xam ne ku baax li xew daal lenn la. Mm-hmm. xam naa mu ngi bëgg yàgg ndax depuis rek euh, fajaru samdi la. Mm-hmm. ñu daal ñu ngi dëkk bi naan euh, département de Malem Hodar. Mm-hmm. dëkk bi naan siwal mu ngi ci région de Kaffrine. kon de dina siiw tey si kàttanu yàlla. waaw région de Kaffrine la. c'est-à-dire ñun daal tëdd nañ ba xa ba guddi ba ay boor yi jàpp quatre heures jàpp cinq heures. léegi pëlis yi nga xam ne moo nekk Malem Hodar. ñëw si dëkk ba. bi ñëw si dëkk ba nag dafa am benn grand boo xam ne moom la ñu doon moom seet. Mm-hmm. ñi koy wax taala ñoo fekk si néegam mm-hmm. ndax ndax bi police yi ñëw dañ noon dañuy ñëw pour jël si ko waaye ñoom ñëwoon pour jël si ko dañ ñëwoon pour duma ko ndax lu tax au lieu que ñu indi oto daanaka ku jël si nit oto ngay indi waaw ko jàppee mënatu ko yóbbu ko ñoom ne bi ñu ñëw mutul lañu war ca Jakarta mm-hmm. ñaari nit lañ ñaari nit ñaari police ñaari police pare war moto ñoo doon dawale seen bopp ñoo doon seen bopp kon xam nga ne ko ku ñëwoon pour jël si ko ñoo liif wala liif lañ yoree ak euh, pistolet lépp ah waaw ak pistolet. Mm-hmm. léegi nag bi ñu ñëwee fëgg ko. Mm-hmm. mu ubbi ndax moom avant muy fëgg dañ ko dañ ko fëgg mun leen ko yow la kan. Mm-hmm. koo kan yow la kan. boo fekk nañu xam kër waa ji. boo fekk nañu xam kër waa ji ndax. waa ji moom lu tax lu tax ñu jël ko dañ ko convoqué woon ay ay convocation. yu bari mu bañ. yu bari demul. cinq demul ndax lu ko waraloon boor la boru xaalis boo xam ne daf ko yoraloon nit. comprends nga. ndax mun naa expliquer euh, histoire mu demee ndax dañ ko joxoon xaalis daal. pour mu jënd ngooñ. Mm-hmm. li kam daaw la moom itam mu jël euh, xaalisu ngooñ bi joxe ko léegi nag mu tombé corona bi. Mm-hmm. si li mu wax. Mm-hmm. gars yi mënuñ ko fay kooku noonu topp ko sa xaalisam. léegi nag bi mu bi mu ko yóbboo police gars yi convoqué ko nag demul comprendre nga. waaw ah. waaye nag ñoo ñëw ñoo ñëw këram nag di ko jël si. bi ñëw foog ko mu ne koo kan la ñu ne ko ubbi su su da nga xam yow la kan waaye kam mu liggéey kër la waa dëkk bi yëpp xam ne kii liggéey kër la. mën nañu wax dëkk bi mooy njëkk a génn te xamee. moom yaakaar ne peut-être ñi muy la mu ubbi rek waaye xëcc loxo bi rek dóor ko dóor ko mu daanu bi may jóg yàlla xam ne ne solul dara dara solul ko mu nekk ñoom foofu di kërti di xeex ngay jàpp ko dóor ko dóor yi métti soo bëggee mën naa la yónnee photo yi dóor yi métti lañ ko dóor ba ñoom sax seen bali pistolet yi seen bali ba ba bali fatal yi mu ngi wadi si kër gi ak seen mbaxal yëpp ñu ngi ko fàtte foofu <laughs> mm. yaa ngi dégg mm. ñu ngi ko bàyyi ci kër gi. ñun nag luy suñu problème mooy. ñoom police yi biñ ko dumaa ba pare dañ ko faa bàyyi dem ni ko après nga wuy si ñoo la dañ ko bàyyi nag ñu ko waa hmm. nekkoon si euh, jumaa ja. waaw waaw julli. heure yi waaw. daa ngi dégg léegi bi nga xam ne moom taxul nañ kër dégg yuux yi. mu daw di dugg. gars yi ko fetal gi na ko soo ñëwee ñu dóor la fetal. génnal fii amul dara dugg fi. mu génn. Hmm. daw si jumaa ja. Hmm. bi demee nag foofu la ko waxee ne ñi ngi agressé taala tombe gaa yi ñoom bi ñu ñu si dëkk bi. Hmm. jaar nañ ci euh, borom dëkk. Hmm, wax ko ko. waxu ko. Hmm. jaar nañ fa ne ko ne ko kër di sàngam lañ jëm. kooku nag moo kooku nag bi mu déggee loolu moo daw na si jumaa ji ne leen nekkul ay agressé police yi la. waaw sacrifice ko. Uh-huh. yaa ngi dégg. mu ne leen kooku nekkul ay agresseur police la. ñu ànd ñoom dem si kër ga. tekk waa ji sol solul dara si yére. solul dara ni ko yaayam juree noonu la mel. ndeysaan bàyyi na leen bàyyi na ko mu dugg si biir sol yére hmm. moom itam mu dugg si biir hmm. jaar si benn porte bi daw dem ku daw dem moom waa ji ki ñu doon dóor ki ñu doon dóor waaw hmm. xanaa lii fii daa desee kii waaw après yàlla xam ne ne nee na bi may dem sax xamul sax si lu mu nekk ndax tàng xam naa tàngoor moo ko doon yóbbu rek tàngoor moo ko doon yóbbu muy daw rek waaw muy daw léegi nag bi mu dee neen ba si boori ñax yi fa la taxaw léegi nag paa nag paa yi nga xam ne moom moo leen waxoon ba ba bàyyi leen ko mu dugg si biir. sol yére mu sol yére. Hmm. sàndarma nekk foofu di leen saaga. di saaga paa yi yéen a ko rëcc. di saaga paa yi naan yéen complice ngeen. Hmm. ah lii yéen a ko waral. Ah, comprendre nga. Ah. loolu waroon na fa indi misaal war na fa indi bu métti bët boo waa dëkk yëpp meroon nañ pour jóg pour xeex gaa hmm. moo leen téye. en loolu wax dëgg yàlla ñun moo ñu naqari ndax du benn yoon kese mu am fi. ñoom daal kon dañuy war di waaye kii nag lan moo tax moom it ñu woolu ko demut waaw ñu woolu ko demul loolu moom xam naa kam moom xaalis bi dafa tasaaroo si dëkk bi. mu dem leeralal leen ko rek neen xaalis bi tasaaroo na si dëkk bi buñ ko dee téye téye ko. waaw loolu moo am na. benn beneen bi est-ce que ñii ñoom ku leen fajloo. moom très bien li li loolu mooy coow li dem daa bañ. léegi nag loolu mooy coow xam nga li non non commencement bi. Hmm. déggul la yàlla xam ne su génnoon su suñ génnoon. Hmm. wane seen carte ne policier la. peut-être hmm. mën nañu ko jàpp yóbbu ko waaye moom bi ñu génnee. may nga sam wax te aussi ñoom ñi ñi ko jël si woon so soriñu ay tani soriñu ay tani waaye tël tani gi moom gars yi waaye it est-ce ko nit quoi heure boobu non non xam nga xam nga nii soo ko jëli soo demee war nga présenté wu hmm. ne man ay police la wala sa carte hmm. waaye yëg de tëb tëb nii di dóor moom lay jàpp ne ñi ay agresseur lañ waa nga dëgg de moo tax mu jóg na di xeex ak ñoom côté boobu ñu jàpp ko dóor ko ba bëri yëpp a néew yi yëpp a néew oh, tànk yàqu yaa ngi dégg dóor ko dóor yi métti lañ ko dóor moo tax bi gars yi daway dem ñu bëri nañ yaakaar ne agresseur lañ hmm. waaye fa hmm? léegi taala waa fu mu mujjee anam waa ji daf fi mu mujjee léegi mbokk yi carrément ñoom dañu waxoon ne dañ koy porte plainte ndax si loolu lañ nekk dañuy porte plainte police yi waaw dañ koy porte plainte loolu la ñu waxoon loolu la waxoon waaye waxtu waa ngay dem cas bi ma jigéen day yomb lool bu fi amee hmm. moom jëm ñi waa ci boppam faaw mu ñëw parce que am lu am na lu réer ci histoire bi Euh, ay policiers kañ leen daan dem di jëli nit euh, di dóore ak di war jakarta mhm. loolu daal problème la boo xam ne am na daal lu sëb la la ko bënn ca biir mhm. am na daal lu xew ca biir lu waxul mais waa moom bi ñu ma wanee photo yi moom Euh, kuntaaba yi métti na xaw ma nag ndax ñoo ko dóor wala lu mu demee noonu. Ah, en tout cas de son yi bu civilisation moom dafa baax si doomu aadama. man nag xaw ma waa ji xaw ma jikkoom parce que moom tamit mi ngi wax ne am musul am problème ak kenn waaye nag ku musta am problème ak kenn buñ la woowee yow it. Mm. da nekkoo nekkul voilà dafa waroon a dem wuy ji amaana kon lii lépp du ko ci fekk te man de wax fa dëgg yàlla ba ma dee ma jigéen ba tey. mosuma mm. dégg fu ñu sante policier bu demee di jëli nit na ko dóor. parce que ak mu war Jakarta. ak war Jakarta bi peut-être manque d'équipement souvent ci seen poste de police bi la mais nit ki daal soo demee bay am lenn lu ngeen xamante ni sekk ngeen ko demal jël ko si njëkk ak teraanga nga yóbbu ko mais sant ñu kenn muy dóor kenn vraiment. Mhm. voilà. waaw xam nga gars yi waruñoo soltani yaa ko. Hmm? lu ci dara nga ni. bu ñu wanee seen carte waaw. waa ji yi yor nañ seen carte c'est que waa ji moom dina ma wax loolu ne ne man naa ko hmm, Assane Mesere mais dama ne. waaw waa ji daal donc woo nañ ko ñëwut. dem nañ jëli ko. Mhm. ñaan nañ leen. mais waa ji li ko jaral def taatu neen daw. Mm. waaw mbir la. xawma ma lan la nag waaye daal li ko jaral. bañ ñaan leen. ba policiers yi may ko mu mu génn ak taatu neen départ fekk mbooy gi ma jën boo mënee daw rek daw ak yaramu neen daw taatu neen moom xam naa ne moom am na lu ci lu booy daw daal am na loo am na loo xamante ni waaye daal il faut ma loo mën a def mm. waaw buñ ne la kaay demal demal ji pour pour pour day tax sax sa correction dina gën a wàññeeku mais sooy daw di daw di dem rek bu yàggee même buñ la soupçonné wul woon sax soupçon bu nga xamante ne ni à cent pour cent la da ngay da ngay waa ji il faut jigéen daw ak taatu neen génn ci bitti ah. ku ko ñeme ku ne. Hmm. lan am na lu ne ca gannaaw. non waa ji moom il faut ñu moom alaaji waa ji il faut ñu ko dóor loolu leneen la quoi mais waa ji moom ci jëmmi boppam la il faut bàyyi jot ko waaw loolu moom jar na càmm faw bàyyi Assane jot ko waaw ah parce man am na lu ma réer ci histoire bi daal am na doy na waar waaw am lu ci lu ci réer hmm. waaw que jëm rek du du ma noonu hmm. baax na génn leen jaajëf génn leen alaaji <laughs> alaaji génn leen studio bi alaaji génn leen studio bi alaaji jógal alaaji jógal voilà jógu leen génn leen melo mi ngi noonu yaa ngi jàmm alaaji tey fi nga génn baax de bleu marine bi man yow laa yow laa jàppale non non non moom yaa miin na Ndakaaru ah, bii tam miin na Ndakaaru ah non non bi macha allah kon yow logiciel bi ngay liggéey mais lii tax ngay bëgg a rey gars yi mais yow yow quatre mais li tax kay melo affaire yi amul rupture ah mais mais animateur yaa ngi ñëw mbokk yi ci kanam tuuti moom DJ Melo ànd ak euh, yaayu animateur yi muy soxna laal la bu ngoon gee DJ Prince papa animateur yi ñëwaat fajaat leen bu guddi gee incha allah soxna sa ñëw nu mu tudd. non sa papa daa war a génn sa papa. non sa papa non sa euh, daa war a génn mbokk yi. <laughs> génn naa mbokk